alaikum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom bi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk si adina bi maa ngi leen nuyu maa ngi di ziara tey la ajuma 8 avril 2022 waxtu wi may wax ak yéen pratiquement 17 heures jot na ci Dakar ak li ko xam ngeen ni depuis quelques jours am na fële ca Ziguinchor ci euh, benn cour bu chambre criminelle bu ubbeekoo Ziguinchor bi nga xam ne pour une fois nangu nañu delluwaat di juger dossier bi nga xam ne waxtaane nañ ko fii à plusieurs reprises fii ci Kéwoulo mu jëm ci li euh, nit ñi ñu jàpp dans le cadre des tueries yi nga xam ne mooy reye yi amoon euh, le 6 janvier 2018 forêt classée forêt classée des Bayottes ba de sénégalais fait Bayotes. de les tueries de Boffa Bayotte la qui ci en a xam yépp wax na dossier bi Ganao depuis le euh, fin mars bi le 21 procès bi euh, képp koo xam ne ku habitué nga Kéwoulo lay ziguin Ziguinchor la nga xam ne xam nga ko tey wala dégg nga ko tey fekk mosoo ko woon a dégg néew na parce que lépp lu ñuy juge bi ak tribunal bi sëgg tey di ko juger fekk ñun cabar nañu wax nañ leen loolu lépp la ca nekk léegi nag lan moo ci nekk nee nañu ki nga xam ne gannaaw bi ñi nga xam ne parce que ñaar fukki nit lu woon ak juróom ñaar ak juróom benn ñu jàpp ci ba kenn mag bu am quatre-vingt-deux ans muy Seyni Saane faatu seen loxo ñu delloo ko ay mbokkam pour ñu rob ko desoon na lu mat euh, ñaar fukk ak juróom muy vingt-cinq personnes gis ngeen ko bañ ci duggee jël nañu lu mat douze personnes ñu leen yibbi leen seen kër yéen defoo leen dara alors que ne serait que benn fan benn fan ñoo ñu waruñu koon def dugal nañ leen ñeenti atu kaso ñu génn ne dem leen seen yoon tax nag ñu liggéey bi c'est que dañu fekkee yàlla daf ñu baaxee ñu fekkee ca la xewoon ca kaaw ñoom Inno ak Alex 1998 tëj ay nit fukki atu kaso nga xëy ne leen dem leen seen yoon defoo leen dara parce que amuñu benn élément moo tax ñu ni suñu borom bu ñu mayee ñu fekkee ci dans le cadre suñu liggéey muy journalisme

parce que mënoo def enquête te amul constatation constatation audition ñooy ànd ñun ñu njëkk taxaw fi ci kéewu la ne leen ñii leen wax ni dañu enquête dañ ba jàpp ay nit dugal leen ci kaso ñu dem sur le la scène de crime fi ñu reyee nit ñi ñoom masuñu fa xam ñu gis xamuñu ne garab yi tëddee xamuñu ne niiw yi tëddee woon xamuñu yan bal la ñu utiliser xamuñu nu ñu reyee nit ñoon donc naka la ñu mënee dem song benn dëkk jàpp ci lu mat euh, vingt sept personnes dugal leen ci kaso yi ñu ne leen enquête bi dafa takk suuf alors que UEMOA UEMOA article 5 bu UEMOA nga depuis 2015 la ko Sénégal ratifié dafa ne boo jàppee nit balaa ñu ko boole ak enquêteur mu taxaw dañ ko war bol euh, boole dafay fekk la présence ñu wol ko avocat avocat am yi taxaw bolé ci képp ku ñu japp yóbbu la police dañ la wara a ses droits parmi ses droits mooy le droit à être assisté par un avocat article 5 de l'UEMOA képp ko xam japp nañ ko lire lu ñu ko droit am yooyu ñu xey rek diko auditionner audition bobu dañ ne dafay nul gis ngeen ko def nañ ko ca Thione mais ca Ndakaaru ca Thione Seck borom baat ba nee nañu dañu annulé PV bi parce que article du de ma respecté wuñ ko mais ñu ca Boffa bayot parce que Boffa bayot lañ dëkk kenn xamulen amuñu bàjjan amuñu kenn ku leen joyal ci dëkk bi appliquer nañ leen malgré tout ñu maintenir leen en détention euh, le 14 janvier lañ leen japp ci kaso yi pour ñom ñëpp pratiquement septembre la la plupart gisé avocat gendarmerie dañu enquête wax na leen mësuñu gis néew yi fañ nekk ab civil moo ànd ak euh, euh Edouard da Silva chef de village bu bu bu Boafa Bayot mo ànd ak ay mbokam dem jili newi ak blessé indi len ci kaw tali bi. armée nationale bi nga xamné ci à huit minutes la camp militaire bi bat e bataillon nek ak village bobu ñom amuñu won sax information pour xam fan la yifi nek la preuve samedi la réy am lundi matin ci suba teel ñom village bu Bofa Bayot lañu encercler alors que yëf yaa am dans la forêt des Bayot à plus de onze kilomètres de Bofa Bayot waxna len ne len section de recherche déploiement biñ fa def yépp nee len leen wuñu fo lu dul màq fitalu màq ñu bari ne nañu peut-être Babacar li muy wax dafa yomb mané len man duma ma mës ak ku fitna ñi tak nañ takalé euh, accusé nañ ma sax ne rebelle la man duma ak man duma ma ànd ak kuy nit man duma ma ak kuy nit man duma ma ak kuy nit donc simple citoyen sénégalais la yàlla daf ma def ma nekk seede ci ay fitna ak ay reye yu métte métte métte yooyu ma gis feneen mu dëkk mu gis ko Casamance bi ma nekkoon xale yàlla def mu tukki gis ko ci àddina bi en dans mon cadre dans mon métier de journaliste d'investigation bëgguma lu mel noonu am si sama réew loolu moo tax coono bi yëpp daj ma ma ne leen erreur judiciaire bu doy waar moo am ni ñii ñuy topp jàpp leen dugal leen ci kaso bi defuñu dara xamuñu ci dara léegi nag justice gouvernement sénégalais bëggul ñu ne ko jamais tu as tort ñu ne ko li ngeen def du yoon moo tax ñu léegi dañuy rafetal yëf yi nañu bàyyi fukk ak ñaar ñu ñibbi seen kër yeneen fukk ak ñett ñu téye leen kaso wa tey jii bu ñuy enquête ci loo mel ni rey nit faat ay bakkan seede ni di wër a yeeg diw non diwoo diwoo fekkee réunion diwoo fekkee réunion mënut a tax ñu jàpp ay nit bu ñuy tuumaal nit parce que faat bakkan rek ay nit acte bi perpétuité la perpétuité mooy sa giiru dundu kaso loolu la mooy perpétuité loolu la euh, code pénal sénégalais prévoir donc bu ñuy jàpp ni tuumaal ko ni moom moo rey nit bañ ko war ko tëj giiru dundam dafa fekk fi ñu koy teg lu wóor la ay éléments de preuve ñu fekk fital bi ci biir ñu ñu doon rey ñu taxaw ñu ne diw moo ñu rey nit ñu wala ñu jàpp leen à défaut leen prendre en flagrant délit nañu am ay éléments de preuve yu solide tey ñii ñu ñii nga xam ne reture nañu ci rey bi nee nañu ñi fi nekk ci saa bi yëpp xamewuñu ci kenn ci ñu bokkoon dañu rey am na ñu ci takkoon masque mais am ñoo xam ne su ñoon masque te ñii nga xam ne mooy rescapé yi ñu ci bëri ñoom ak prisonniers ne moom lañ leen présenté ci tribunaux yi xam nañ leen parce que daggkatu bant yi balaa ñu doon dem di daggi bant la plupart dañuy ñëw ñii sax dañuy dëkk biir Toubacouta di añ di reerandoo ak waa Toubacouta waa Toubacouta yooyu la ñu teg ci kaso ñu ne est-ce ci kenn ci ñu nekkoon di leen rey ñëpp ne musuñu si xëy kenn ñoom est-ce que gendarmerie ci biir enquête am parce que nee nañu am na loo xam ne mu ngi ci enquête Babacar Touré xam ko bële man Babacar Touré ma enquête ak samay élément mun ñu ko gis xanaa kon tey ci tribunal bi ngeen présenté ko pour sénégalais yi nga xam ne suivre ñu débat bi parce que dama dépassé équipe journaliste yoo xam ne ñu ngi taxaw foofu ko euh, foofu ci procès bu Ziguinchor bi ba yëf yi jeex amuñu dara ba dara booloo jeex bu ñu présenté comme preuve ni ñii ñoo rey amul fital amul témoin bu taxaw ni ñii ñoom laa àndal dem reyee li nga xam ne mooy base accusation bi yëpp mooy benn waay bu tudd Maurice Badji boo xam ne dafa amul ay problème famille ak ki nga xam ne mooy rene Capain Bassène moom la gars yi dem gis ne léegi da ngay wax ni da nga fekkee réunion bi jox ñu ay tur waa ji dem xaatim fukki bac fukki tur jox ko ci list joxe ko ci liste boobu mu tudd ci ku tudd Ibou Sané Ibou Sané it dem bind listam bind si dix personnes

César Atou Badja dina ci taxaw parce que moy chef de guerre bu MFDC fraction du sud mooy Kassolol nee nañu boole nañ ko ci ñi nga xam ñu ngi koy poursuivre dans la chambre criminelle mais mom ñëwut nee nañu émettre nañu mandat d'arrêt international mais lolu euh, benen phase la bo xamné ne nañ ko développer parce que gis nañ ni 1997 ba tey euh, César Atou Badiane mu ngi si àll bi and ak ay rébellam and ak ay boromi fetalam ñooñu jëli ko fa du yomb ndëgëm gaay mënu ñu won sax dem seeti scène de crime bi plus forte raison dem jeli César Atou badiat bombardement bi ngi di dégg ñu naan Casamance ñu ngi bombardé euh, zone bi Salif Sadio nek César Atou badiat ñi xam nañ ni base am Kasolo la nek ci frontière Guinée-Bissau ba tay attaquer gul fof ñom Djibi John sinjang bor bobu la ñuy attaquer dans le nord de la de dans le nord de la Casamance mais le sud bi nga xam mooy base César Atou badiat ñëpp identifier nañ base bi kenn laalagu ko loolu parenthèse la ma tejj ko ma fàttali ni. bu ñuy wax waxu mandat d'arrêt international concernant les rebelles bu yaboo ñu téye si parce que 1990 am na mandat d'arrêt international boo xam ne euh, nee nañu décerné nañ ko contre ki nga xam ne mooy euh, comment il ki nga xam ne mooy tudd euh, encore Nkrumah Nkrumah Sane décerné nañu benn mandat d'arrêt international contre moom 1997 ba tey mandat d'arrêt international boobu kenn mësu ko exécuté donc bu fekkee ni dañu bëgg euh, gëmloo sénégalais yi ni en décernant un mandat dare international contre euh, César Atoute Badiate nu changer la donne loolu dafa bokk ci tappale yoo xam ne dañ koy def pour nax askanu Sénégal ñu wax ko quel qu'en soit les prix ñun sunu responsabilité li jëm ci dossiers yi nga xam ne choisir nañ leen nañ ko défendre dinañ dem jusqu'au bout ñu wax sénégalais la ca nekk yéen nag yéen sénégalais yéen moom yëf nag mangok pakabangok bangoog lu leen ci neex def leen amul preuve ay seede lañ am yu ñu monté à charge ñu tumal ay gor tumal imam jeme boo touba ne tam mo doon jité jàkka jax moy jangalé alcorane ci dëkk ba ñu jël ko duggal ko ci kasso bu mat ñenti at imam bi gis ngeen seedeem fi ci kéwloo néna mënatuma jité suma taxawé di bëgg jité sax damay faté ay ñu xëy ñu ne ko imam demal sa yoon defatoo ci dara wax naa leen Seyni Sané quatre-vingt-deux ans dee na ci kaso bi Papia Sané mu ngi am soixante-quinze ans pratiquement tey lii pratiquement avocats yi mët nañu plus de dix wala quinze avocats en tout cas le minimum ñu yóbbu leen fële ca Casamance ñu di leen fayee parce que ay commis d'office la ñu ñii ñu jàpp amuñu xaalis amuñu alal bu ñu mën a fayee avocat donc gouvernement Sénégal mooy fay avocat yooyu ak suñu xaalis pour ay caaxaan lu mat plus de 10 avocats ñu ngi Casamance actuellement le gouvernement Sénégal Macky Sall mo leen wara jël xaliss yu ci suñu trésor fay leen ci suñu dondo ci lo xamné mën nañ ñuko éviter depuis le début avocats pour ñi nga xamné dañ leen japp mais avocats pour ñi nga xamné ñom lañu ray ñu rey seen mbokk ñii ñu ray seen mbokk ay sénégalais lañ ay doomi adam lañu ben bakkan borot rek lu ma nag lu ma metti la dañ koy rutu ba ci kanamu yalla li ñu bëgg mooy ñu traqué ñi nga xam ne tour nañu deretu doomi sénégal wala tour na deretu nit ci kaw ci réewu sénégal ñu jàpp nit kooku teg ko ci yoon mais dem fekk ay xuusmaa njàpp yoo xam ne seen yoon si parce que amuñu bàjjen amuñu tonton ñu jël leen dugal leen ci kaso bi moom lañ def ci yëf yi wax naa leen ko ñu ci bari ne non y a des données yoo xam ne babacar comprendre ak loolu parce que données yooyu maa ci bëggu doon tudd parce que ma leen doon bàyyi ñu dugg ci loolu mooy lan mooy yi yow xamuloo fu ma dëkk xamuloo fu may fanaal yow nga euh, euh, ne su ma la nee su ma la nee maa ngi sama kër yow nag nga mënee xam maa ngi sama kër wala nekkuma sama kër puisque yow xamuloo sama kër nag nga mënee xam ne Babacar localisé naa ko mu ngi këram te yow xamuloo sama kër fu mu nekk. fi ñu defee tuerie yi fi ñu reyee nit ñi gendarme yi masuñu teg seen tànk foofu armée Sénégal masul teg tànkam foofu ñoom naka lañu ñu mënee xam ni. ñu ne ñii nga xam ne mooy ñoom René Capain Bassène et consort ñu ngi woon ñoom localiser nañu seen téléphone parce que mu ngi mu ngi ci place boobu te ñoom place boobu sax ñoom xamuñu ko léegi tout tourne autour de la téléphonie dama dama ne woon teg te karal bañ a influencé bañ a wax ñu naan le procès se fait à Ziguinchor mais ne doit pas se faire sur la chaîne Kéwoulo je suis d' accord dama toog jàpp sama jàmm seetaan leen fukki bakkan ak ñeent ñu ne rey nañ leen

ñi rey ñu tuur deret loolu moo tax chambre criminelle réunir ne dafay rendre verdict mais duñu ci am benn benn benn benn suite léegi nag tey jii danaa waxaat encore fukki nit ak euh, ak ñett muy 13 personnes lañu renvoyer renvoyé devant la chambre criminelle amuñu dara élément lu dul ñu ne René Capembasen. encore da fay fekk da fay c'est très important ma delu ci lolu René biñ ko doon entendre depuis le début wax na len man dama am ay information en tant que journaliste ni ki MFDC rebelli ñu préparer ay affaires contre les personnes nit ñi nga xam ñi dem dag bant ci dafa avertir ñi nga xam ñoy ay kilifa parce que moom dafa doon liggéey ben structure bu tuddu Anrak mu nek chargé de communication ci bir Anrak Anrak entre autres mission moom su yëgee ay xew-xew yu wara am ci àll bi fay alerter état pour état mu mën ci jël ay mesures René dafa man wax na mako man Babacar Touré mais découvrir na ay témoins yu mané René bindul na rapport yëgal ko Sénégal né len nañu moytu nañu jog nañu waxtaan ak wa àll bi parce que wa àll bi yëngu nañu né nañu ku fa dugg ci àll bi dina na ray bu fekkee na ngay dag bant ñu ngi préparer coup bu mel non René né na man Babacar Touré né na ma dafa bind rapport alerter mu ne ma rapport bi général Birame Diop jox naa ko ko euh, Ba te mu nekkoon directeur chaîne 4 bu Ziguinchor jox na ko ko nee na ma jox naa ko Ansou Sané bu ANRAC nee na ma jox naa ko ki nga xam ne mooy euh, euh, comment il s'appelle Diatta dinaa ñëw ci tur bi parce que tur bi damay koy plané temps yële bind na benn torchon benn connerie benn papier bu ñàkk a fayda ne bu ma ko Xavier Diatta la tudd. nee na bu mu ko tuddati te nee na mën naa moytu naa surveiller samay arrière dinaa surveiller samay arrière mais li yàlla dogal ci man rek ay am leneen du am nee na bu mu ko tuddati ci dossier bu sensible bu mel ni mais maa la maa ko tudd Xavier jaata euh, René Capain Bassène ne ma jox na ñeenti ñi rapport laaj naa leen ñu ci bëri moom Xavier surtout nee na ma du ci wax mais tey man bu ma ko laajee mu ne du parce que bu le fait que ñu xamal ni René yëgoon na liy xew avertir na Sénégal mo jëlul ay mesures bu fukki bakkan rob ci c'est de la responsabilité de Xavier Diatta nee na bu mu ko tuddati ci yef yi artu na ma bind na ben connerie boo bo xamné yalla rek xam quoi liiruma mako dañ ma ko liiral quelques minutes en un moment ma arrêté parce que la la quintessence de li ma wax moy est-ce que jot na rapport bi wax ni nañu moytu ci Allah bi wala jotuñu ko nee ma man duma tontu mais ben tubaab journaliste François Bader boo xam ne damay liggéey ak moom te mu nekk France Télévision moo ñëw jàppale Kéwoulo laaj na ko woo na ko mu ne ko waaw René jox na ma rapport François Bader yónnee rapport yónnee article boobu publié ko France Télévision mais waa Kéwoulo reprendre ko publier ko man ko moom fii sa Sénégal jamono jooju maa ngi yoon euh, Guinée moom mu woo François Bader ne ko waruloo ko bàyyi article boobu ñu publié ko Kéwoulo parce que sinon bu jàllee ci Kéwoulo ñii nga xam ne ñoom laay liggéeyal muy waa kër euh, ñàkk jàmm ñu xalaat ni man ak Babacar ak parce que ñoom Babacar pour Sonko la booyu Sonko la bu boobaa dañuy foog ne euh, Babacar man maa jox information bi Babacar tubaab bi woo ma ne ma il faut nga bàyyi keneen signé ko ma ne ko man signé wu ma article bi xaw ma sa article man li ma li ma bind damay am courage ma signé ko man dama gëm benn affaire yàlla du bind si ñaar rey si benn sama destin yàlla bind na ko man je suis un instrument au service de l'État euh, du moins au service du peuple sénégalais je suis un instrument au service du peuple sénégalais loolu nga dugal ko sa bopp te man du ma booyu kenn du ma booyu kenn aduna du yàgg mukk ma nekk booyu kenn c'est que peut-être boo xamul nit xamuloo ko ma fi dellu si naan la man maay diw lii mooy sama maam lii mooy du ma ko def bref tey jii bi ñu taxawee ci tribunal bi Anso Sané nee na rapport am na René Capain Bassène bind na rapport mu jox ma ko donc dafay confirmer lépp lu René waxoon léegi naka laa mën a bind rapport ma ne leen moytu leen senegal lii dafay am lii dafay am loolu xëy am ngeen ne man maa jiite loolu maa ci nekk c'est comme du ma leen wax ni complot Ousmane Sonko ah, kii yëfu euh, histoire Adji Sarr bi ab complot la ñu ne Babacar bu ci xamee lu bëri sax c'est que Babacar ci ci biir complot bi la nekkoon. ci lu mel non la ñu téye jambo duggal ko ñenti ati kasso tay ji de ngeen procureur Ismaïla Diallo Pape Ismaïla Diallo mi nga xamné mom moom na sax on peut comprendre au nom de la continuité de l'État mën na ne day endosser responsabilité historique bobu mais yëf yi féké ko procureur Silla mo féké mo commencé yëf yi ak juge d'instruction ya ca ya ca tegu li nga xamné code de procédure pénale tënk na leen pour ñu liggéey ko noonu nanguwuñu ko liggéey parce que le juge il doit enquêter à charge et à décharge nanguwuñu ko def lepp lo xam témoin la indi xam dafa far pour pour wax ne ne man ak René football les témoins à charge témoins témoins yu ne wax amut

dafa newoon coupable après légui finalement on va sur complicité complice de coupable alors que depuis le début si njalbeen dégg ngeen ko ñu don wax René Capem Bassène le cerveau de la théorie. tuerie léegi dootuñu complice ñu cerveau mais ay complice lañu mais légui sa complicité bi si boppam lañu amatul légui nee nañu yow ya téléphoner diw yow ya bind mail diw yow ya waxtaan ak diw yéen a def réunion légui nak ani ñan ñoo rey ani ñan ñoo rey l'État du Sénégal à travers sa gendarmerie est incapable de nous présenter des tueurs mais de ñu jël pour le symbole et pour la forme ñu jël ñaar ñeenti nit ñu yàq seen àddina li Me El Hadji je m'en fous ñoom ils s'en foutent seen une aussi. que ñu jël ñaar ñett ñeenti nit ñu condamné leen une yónneeku c'est pour ñu jéem a raxas seen der c'est comme ku jàpp ay nit rendi ay doomi jàmbur rey ay doomi jàmbur ñëw toog sa kër mën a raay sa sa sa bopp sa doom sa bopp doom lu mel noonu lu mel noonu lañ bëgg a def lu mel noonu lañ bëgg a def c'est dommage réquisition Pape Ismaïla Diallo c'est terrible nee na perpétuité lay laaj pour ñi ñëpp treize yi fa nekk alors que amul benn élément de preuve amul benn fital amul kenn ku témoin bu taxaw mu ne ñii maa ngi ñëw ma demoon ñoo rey ñi fa nekk ñëpp xam nañu waa Toubacouta ñu ñu leen taxawal devant le tribunal mais ñu ne xamewuñu ñii ci ñi doon rey lan moo leen desee rien mais nee nañu ñoom il faut que pour le symbole il faut ñu condamner moo tax René nee na nangu na nekk nagu sarax bi nee leen bu ngeen ma condamné bu ngeen ma reconnaître leen ni man ma rey te mu leer ma ne man mësuma rey kenn bu boobaa dinaa leen jox sama bakkan parce que may dee seen loxo danaa xaru mu di loo xam ne lu terrible la parce que dafa mel nga am sa dëkk ñu ne la doo ko fi waxee loolu la ma benn jour benn imam tuba wax mu ni ma yéen benn nit muy Ousmane Sonko dañ ko tuumaal yéen Sénégal yépp ngeen jóg ngeen xeex ngeen rétablir dëgg bi ñun suñu ñaar fukk nit ñu tuumaal leen duggal leen Sénégal ni yëpp ne selewu noppi bu ne Babacar Touré rek moo daan wax rek moo dugg ci enquête bi waaye avocat ñu ngi ci ñu ngi ci foofu ci ci ci c'est dans les éléments du dossier ni qui René capain finalement il n'est pas le cerveau de la tuerie ni euh, Omar Ampoy Bodjan, finalement ndeke bokkuloon ci ñu ñu qui nous ñi mais Omar Ampoy Bodjan, lu ñu koy toppee mooy yow Omar Ampoy Bodjan, mës nga ànd ak ku tudd tumbul nga yóbbu ko mu dem seeti kële chef de guerre bi chef de guerre bi tudd César Atoute Badiate Ampoy ne man MFDC la man li ma gëm MFDC moy Casamance beaucoup ci Sénégal na moom le la gëm mom mo jël tumbul yóbbu ko pour mu dem seeti ki nga xamné moy César Abdou Badiate mais pour ñu waxtaan la pour ñu trouver solution pour jeunes yi ñu jàppoon ñu dugal leen ci kasso bi loolu la wax ampoy ampoy bu dafa melni tay kon suba man Babacar Touré su demone tay en tant que journaliste ma dajé ak ben wa jo xam finalement rey ay nit wala tuumaal nañ ko dafa rey nit man Babacar Touré dañ ma wara japp parce que dama dem seeti nit ko en fait dossier bi finalement ci loolu la quoi légui nak face à face bi ak pratiquement plaidoirie euh, comment on appelle euh, position yi jeexna ki nga avocat wu partie civile bi wax procureur taxawna mom il bëgg moy ñu ñi seen ngiru dundu avocat yu défense bi depuis won nañu procureur Niki yorul dara dossier dara ba dara bolo jeex nekku ci luddul ya ñaaw ak ya rafet moy comme li ma leen di wax ci affaireu Adji Sarr bu ñu cëy lu ñu yor cëy lu ñu yor ci dossier mané len amuñu dara ba dara bolo jeex luñu am moy kaddu yu ñaaw yi nga xamné ne bi sar monté nako kaddu yu liñ jël ñu lañ am contre Ousmane Sonko lañ am preuve yu am preuve yu am amuñu benn preuve tous amuñu ko occasion la ma def digression bu ndaw dugg ci dossier bobu tamit parce que nee nañ ma euh, boy mumu nee na boy xawma nan nee na diw nee nañ benn ku jigéen kuy voilà nee nañu am nañu ay vidéo vidéo bi ñu am ma wax la vidéo boobu lan la euh, dam dien bu leeral moo jël ay nitam parce que moom dafa bokk si ñi nga xam ne ñooy conseiller Mamour Diallo moo jël ay boyam ñu dem ñu filmé ki nga xam ne mooy Adjarabi Sarr mu wax euh, mu wax ay wax yu bon teg ko ci deru Ousmane Sonko vidéo boobu la ñu garder buñ lay wax ni am na lu ñu garder lu garaaw mooy ay kaddu Adji Sarr rek loolu lañu am sinon amuñu tous lu ñu mës a am te dañ ko teg ci place publique bi dara amuñu ko ba dara boo lay jeex revenant à au dossier de Boffa Bayotte nii la fa demee <clears throat> ne serait que pour des vices de procédure lu ñuy wax vice de procédure mooy loo xam ne euh, euh, code de procédure pénale dafa wax ni buñ ñu jàppee nit nii lañ ko war a defee heure bi lañ ko war a entendre nii ak nii ak nii ak nii ne serait-ce que pour loolu dañu war a mënoon nañu annuler toute cette procédure un ne serait-ce que la violation de l'article cinq de l'UEMOA mënoon nañu annuler procédure bi bu fekkee ne bu fekkee ne sax ñoom ñoo defoon bu fekkee ne ñoom ñoo defoon article cinq de l'UEMOA bu ñu ko violé la procédure doit être annulée euh, bu fekkee ne ñoom ñoo defoon euh, le fait que mu am ay vices de procédure par exemple un procès verbal dañ ko war a renseigner wax li nga la le SMEC la situation à l'arrivée des enquêteurs les mesures prises l'état des lieux le corps du le corps du délit mën nañ ko renseigner dans la dans le dans le procès verbal bolé ci dañu wara wax ñooñu ñu wax vous avez droit à un avocat bu fekkee ne nous ñoo ñu bind renseigner clairement ils ont renoncé à leur droit à la présence d'un avocat ba pas ñu signer le procès verbal ba pas ñu respecter délai raisonnable raisonnables. de sorte que

mais ci mbedd bi rek la may xaare ñii trois heures du matin la ñu daj seen bunt yi fekk leen seen i seen seen seen néeg yi ak seen i jabar ñu jaxase seen kër yi jël seen yëf te du flagrant délit loolu muy beneen violation boo xam ne mënu na annuler toute cette procédure mais ñu toog ci kawam parce que amuñu bàjjen parce que bokkuñu ci dë bokkuñu amuñu amul organisé wuñu amul benn parti politique amuñu bokkuñu ci benn ngandi tarixa boo xam ne dana leen jàppale loolu mooy dëgg seen i droit du dajji kër yi à des heures yoo xam ne pas des heures légales empêcher leen dès les premières heures de garde à vue ñu gis avocat ñu ci bare ku mel ni René Capain et consort nañu di leen torturer torture c'est interdire par toutes les lois et conventions amuñu benn preuve lu dul euh, diw wax na diw wax na yow waxal diw ne na lii finalement ñu ne téléphone yi pour ñu ko xam euh, li tax ñuy mën am lu ñuy wax euh, bornage dafa am ay antenne relais yu bari moy tax ñu mën a borne mais biir ta sa bo fa taxawé da ngay am ay problème de réseau réseau téléphonique biir ta da ngay am problème bo fa euh kazalika légui René Capain Bassène sen kër Kandialang la nek xawma ndax amna antenne émetteur certainement dans le secteur de Kandialang mais antenne bobu rek ak bo fa bayot fi fi amé

nañu xalaat ni quand tout là sera fini lii yëpp léegi moo jeex dans quelques jours xam naa ci lu ma njort dinañu jéem a jàpp ñaar ak ñett ñu ne ñoom la ñu condamné ñaar ba ñett dinañu jéem a jàpp ñooñu ñu ne ñoom la ñu condamné mais askanu Sénégal laay waxal ñii ñu jàpp ñii ñu yóbbu ci tribunal bi amu ci kenn koo xam ne fekkee nañ la ngaray am nañ la yére boo tàkk deret gisuñu kenn ku leen ne am en tout cas am na ay témoins yoo xam ne rëccu nañu mucc nañu ci reyee yi kenn taxawul ne diw ak diw ak dëgg daf ci bokk te ñoom xamee nañ leen bu baax xamee nañ leen bu baax kenn taxaw fa ne diw rey René Capain Bassène bi nga xam ne da doon alerter état ñoom dañu lankoon ne du dëgg mosoon alerter tey Anso Sané da xaw na devant le tribunal ne René dafa doon alerte yónni na ma rapport pour ma jox ko gouvernement bi léegi lan moo ci des. lan moo ci des euh, yii yëpp dafay jeex doomi aadama ndombal ndombal ndombal euh, ndombal tànk buñ la mën a tàkkal bës na jot ñu ne la demal soxlaatuñ la demal nga ñibbi sa kër mais nag mu des yow ak sa jëf ci ci àddina ak alaxira ak sa njaboot bi ngay condamné nañu bàyyi xel ci loolu sama conviction mooy ñii dañ leen war a bàyyi ñoom ñëpp ñu ñibbi seen kër ñu damp ñu damp leen ñu fay leen ñeenti at yi ñu dugal ci kaso yi mais am na lu bëri loo xam ne mënuñu leen fay parce que ay famille tas nañu ay nit dee nañu ci ginnaaw wax naa leen kaaw Ibou Sané Nafaw mi nga xam ne ci kaso yi lañ ko tëj jabaram ab ab ab militaire bu nekk ci ci cantonnement ba nekk ci dëkk bi ëmbal jabaram ëmbal doomam bu jigéen benn militaire bu am sañ-sañ boobu militaire boobu ba léegi musuma dégg benn sanction ñu def ko ko ëmbal jabaru koo xam ne ci kaso bi ëmbal doomu jigéen doom jigéenam parce que doom bu jigéen bi dafa jege woon militaire parce que nee na moom bëgg a nekk militaire seen kër cóol na métti na mu yaakaar ci moom amul lu ngi def mu dul ëmbal doom ëmbal yaay te dala fekk ko ci waxu naa leen dama leen koy waxaat encore dëkk bii ñuy wax tax ci biir dëkk bi camp militaire mu ngi foofu camp militaire camp militaire mu ngi foofu te matul camp militaire ci biir ci biir quartier ci biir dëkk bi la nekk ci biir kër yi la nekk naka la waa dëkk mën a réunion ba ñu dem ci àll bi di rey fukki bakkan ak ñeent te militaire yi yéguñu ko yeneen militaire yi yéguñu ko yi li mooy euh, parce que période koor lañ nekk parce que ñu si bare nee nañ ma vidéo yi na gën a gàtt incha allah dina gàtt mais dafa am à situation exceptionnelle dafa war am ay mesures yu moo tax ma xaw a guddal bii nii nii tuuti sax René Capain Bassène la euh, Omar Ampoy Bodian Abdoulaye Jeju, eh, Papi Assane, bari nañu mën naa ci mën naa limal tur yi benn par ben. Abdou Karim Sagna parce que xam naa leen ñoom ñëpp parce que je me suis familiarisé parce que man noonu laa mel su ma nekkee ci benn dossier dama ciy dem ba jeex tàkk ñu lañ jàpp tey dañ leen di procureur Pape Ismaïla Diallo pour l'histoire et pour la mémoire nena perpétuité de demander nañ leen tëj seen giru dund man sama conviction moy dina nu bàyyi ñëpp dinañ jàpp ñaar wala ñet mu neex leen ñu ne ñoom dañ leen di condamner mais mais na Sénégal yi yëpp jàpp na Sénégal yëpp japp comme nu mu leen mën a ñu ne Babacar Touré ñëw léegi-léegi ñu jël mo dugal ma ci kasso bi bu bés bu leen neexee ñu baye na Sénégal yëpp japp ni ñii ñu jàpp yor leen fële ñu seen yoon nekku ci reye yi nga xam ne moom lañ ne ci loolu lañ leen jàppee ki nga xam ne nag mooy César atul Badiate moom chef rebelle la moom assumé na ko mais ñi nga xam ne jot nañ ko ci enquête bi et puis audition yi génne nañ ko wane na ni moom yëgul fekkewul bi ñuy reyee parce que jamono jooju moom dafa toot bët yi gisatul ñëw ko Sao Domingo di ko opéré René Capain moom moom la doon woo sax di ko neexal ne ko ngir yàlla waxal ak sa booy yi

di xaar keroog seen verdict bi génn bu génnee ba pare ma doog a delluwaat incha allah waxtaan ak askanu senegal ci waa fa Bayotte ma fàttali leen képp koo xam ne am nga sarax booy def fi sabilillah te yàlla tax nga dimbali dëkk boobu di Toubacouta parce que li Sénégal def lu ñaaw ñaaw téef gënu kaa garaaw lépp loo xam ne góor nga képp koo xam ne ku valide nga képp koo xam ne ku dëgër nga war nga mën a taxaw Toubacouta liggéey jàppale askan wi ñoom lañ jàpp dugal ci kaso yi bàyyi fa jigéen ñi kase ñooy dang-dang yi di dang-dang yi dundal njaboot gi te dang-dang yi yóbbul seen borom kër pour ñu am lu ñu lekk ku am sa zakat ku am sa sarax ku bëgg jàppale waa Toubacouta pour am ne serait-ce ñu am lu ñu lekk ne serait-ce ñu am lu ñu lekk mën nga jokkoo ak seen chef de village jox laajuma pour ma def ko de Là, du mot ko autorisation it man maa jël sama responsabilité di jël numéro téléphone am jox leen ko ku ko bëgg a woo woo ko ngeen nu ngeen jàppale ba rek tax numéro bi di 00221 mooy Imam Diémé bu Toubacouta 78 234 06 13 mooy Imam Diémé bu Toubacouta 78 234 06 13 keneen kii di. Euh, euh, Pape Sané Pape Sobat Sané moi chef de village numéro 77 900 900 900 904 96 41 96 95 41 voilà 95 41 parce que wax dëgg yàlla kuy jàppale nit te tax nga dëkk boo xam ne amul emploi quelques personnes yi nga xam ne war nañ mën a liggéey pour dundal askan woowu lañu jàpp mais ni ñu am projet rey dëkk bi vingt et une personnes ñaar fukki nit ak benn donc papa ak ay doom boo jëlee Ibou Sa euh, Ibou Sané euh, comment on appelle Séni Sané quatre ans mi dee seen loxo dañ ko jëlaale ak ñaari doomam yu góor Terema Sané ak euh, Aliou Sané ba seen papa dee seen kanam ci kaso bi finalement bàyyi nañu doom yi mais bàyyi ba moom dem na alaxira ku mel ni euh, Ousseynou ak Assane Ousseynou ak bat Badji ñaari seex seen papa mënut mënut def dara gumba la seen papa it balaa ñoom seen papa lañu ñu tuumaaloon yu mel noonu 1992 dugal ko ci kaso yi ba la jaaree ñàkk ay bëtam paa bi tey mook jabaram ay màgget la ñoo xam waa dëkk bi ñooy xool ku ci sal dara nga may leen pour ñu lekk euh, mun naa leen wax Adama Jëmmee dafa dafa dafa yéeme dafa yéeme naka la doomi aadama parce que dañ la solloo tuni naka la mënee soxor bii soxor def ko ci kaw yeneen doomi aadama tout temps sachant que lii muy def bu toogee këram xam na ni ay innocent laa jàpp dugal leen ci kaso mbokk yi euh, li mooy vidéo bi ma leen bëggoon defal ci li jëm ci Toubacouta li wax la ni procès bi mu ngi continuer depuis démb ak i tey ñoom euh, Clédor Sireli, minga mi nga xam ne dama koy jaajëfal dama koy gërëm gërëm bu amul àpp ndaxte bàyyi lépp tëj sa cabinet yeneen avocat yi commis d'office sax gouvernement moo leen fay mais moom kenn fayu ko dara man maa juglu ne ko lii dafa sës mu taxawuma cabinet équipe am ñu pendant des jours ça fait presque deux semaines mu ngi pour taxaw pour ñu parce que même ñi nga xamné sax ay avocats yi ñu indi gouvernement bi wax leen pour ñu accuser ils sont mal à l'aise dans ce dossier ils sont mal à l'aise dossier bu ça se comprend pourquoi ay waxu aji sar ñu mën ci indi fitna ba fukki bakkan mën ci parce que caaxaan boko boo ko pays bu normal pays bu développé commissariat de police ba lañ koy lem sandi commissariat de police

mbokk yi maa ngi leen di jéggalu maa ngi leen di euh, ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen wax leen ni li dal waa Toubacouta mën a dal kenn ku ne si ñun kenn ku ne si ñun yàlla ñu yàlla musal rek mais kenn ku ne si ñun mën na leen dal ku mel ni Abdoulaye sëriñ la nekkuloon de période boobu mu ngi fi Dakar dañ ko convoqué ne ko ñëwal kaay wuyu si ñu mu dem wuyu ñu ne ko ràpp ci kaso bi ñeenti ati kaso waaw René Capin nekkuloon nekkuloon boppu Bayot Ziguinchor la nekk ñu ne ko kaay Omar Ampoy Badian nekkuloon ci àll bi Ziguinchor la nekk ñu ne ko ñëwal Abdou Sagnan mécanicien la vingt quatre ans la amoon vingt quatre ans non astafirlah vingt cinq ans la amoon bi ñu koy jàpp keroog fan yi génn dem naa Toubacouta gis ko am na léegi vingt neuf ans ñeenti atu jeunesse am ci kaso bi la ko defee nekk ci beneen néeg ak papam ñu tëj leen yal na yàlla indi jamm senegal yal na yàlla senegalay euh euh yermunde ci sunu xol yi xalaat xalaat senegal ban tank lañ koy fan lañ koy bayyi ci yan loxo lañ koy bayyi ci yan tank lañ koy tek tay xalaat ni li yeb dina jeex kenn ku li ci ñun du wet yow ak sa bàmmeel yow ak sa borom mu laaj la bi nga doon dund lan nga doon def bi nga tumale diw bi nga tumale diw bi nga tumale diw maa ngi maa ngi leen di baalu àq di ko sàkku si yéen di leen ñaanal jàmm yal nañu jeexal weeru ko bi ñu dugg yal nañu ko jeexal ak jàmm jërëjëf.